أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل سر وسنم أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل سر وسنم خاطبته في البر والبهر وفي أسر والجار مع الهاجر وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع صلاة سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنام woote جم دخ وجولي بري بحري سقاي bari saqaay maam kaay leen liggéeyal sëñ bi mooy loolu moy liñu taxajuk tax a bi ma ñëwee maa ngi fekk señ fallu càll ba dir bi ma toog sax xawna dis ci man ndax bàyyi sa bàyyi mu nekk ci ronuk sump nga dik tok fi loolu lepp señ bi señ señ bee ma xawal te tey ñi ma fi gis tay dañuy murit gi te waxtanu murit bu xasse ñew doto mom sa bop mom ma fi téye ba nepp na man daanaka ñaari minute la da am waye waxtanu murit we neex ba ba dem ba nëgëni ndax ñi ma fekk ñëpp ku ci nekk bopp yoon nga te li sëñ bi nekk daana ci la war rek moo tax bu néewuloon ci la war it xam nga man euh, ñu bari ñàkkuñu fay la waaye liggéey ci lii lañ moom suñ kilifa yi lii lañ leen xame woon dem ci àll ba gor ko sanc ko liggéey fa di fa yar nit ñi yar taalibe yi ak jàngale moo tax na du ay at a tax ñi fi daje ñëw fi dañoo ñëw ngir kiri de limi muy lu bax la te ku ko ci jappale na yalla jappal na way jappale gi moy ku wote ci lu bax bo ci waré dem dem ci ngir yalla ngir ñi ci des ñala cey roy fim ne ni am na ñoo xam ne ñu itam dañuy di jaajuwaat euh, ni ah gannaaw sëñ Cheikh demoon na di barkelu day kon nak man na jóg yon lool rek fi maye dara yaakar waaw bo joge da nga am sa yaakar dañu wax ni sëñ Touba euh, dafa fekk bay ñuy waxtaan maanaam magi magi magi magi taalibe yi di waxtaan ci baaxuk samba yi mu bett leen mu ne lu ngeen di wax ñu ne ci mbirum saaba yi lañ nekkoon mu ne leen day wax ngeen dëgg de waaye lu lu lu baax kilifa di maye day am ngeen ko liñ leen rawee mooy da ngeen dul fas waaw lu lu ci waa ji duggati na koy fas ah maa ngi seet sëñ bi fas naa ci yéen nangam loolu rek la nu saaba ya rawe waaye neen lu baax kilifa di maye am ngeen ko loolu leen seigne touba waxoon kon loolu lay rogalaat ba nage ni am bis bo xamni ni dem ci wote seigne Abdou Khadir ci yoonu daru salam Darma loola yag na bobu seigne modo ngi fi al rooxu nak da sa siddi day royat de go sank man len kuñ ne sa bay bax na sonu nga ndax bobu bëggoon melni mom mo lay tax mo lay tax son te baye dañoo bax bop ki fi dajel yoon wi mo fi dajel ñep waaw buñ la ne mo mo mo moy loxol yoon wi ah ku ne ne kon yoon wépp lañ woo ah hmm? daa tolloo nag ku ci nekk am nga ko la yebal waaye nag xoolit la yeble ñun ñi suñuy xel moo moo nu indi waaw hmm? suñu xol moo nu indi ndax euh, la ngeen waxoon la sëñ bi waxoon euh, dëgg-dëgg xarit mooy koo xam ne kii bu tiisu jamono sang songee ko mooy sa xarit waaw benn benn tiis tiis bu ñëwee rek wala benn jafé euh, ba lu melni rek ña nga xam ñoo ñëw wër la jappalé la ca ñoo ñoy ñoy ala xoxan wala wal khalil sidqan andaru min kulli Khalil lool rek mo ci ne axan wal khalil sidqan andaru min kulli Khalil haqa lool mo mo nu fi dalé waaw sant yalla bu baax di sant Serigne Touba ci rafet ndior lool ak jàpp ne tawfiix ci liggéey bi ndax yàlla def na tey jii bi ma xëyee moom mi laa jëkk gis may ubbi ñu ne mi ngi fi te loolu doy na sëkk ijaaba daaw dama doon tukki euh, jëm Turquie ci taalib ma gën a daaw may dugg ci avion bi xaw ma ne suñ Cheikh ngi ci biir ma duggee ba toog rek mu seet ma ñëw nuyu si ma ma ne ko ah, sama xel dal na dina li may doxe suñ tubaab nangu na ko kon nag mooy xëy xëy fekk ko fi moom mi ak suñu fàll mi. nga xam ne moom itam xam ngeen ni mu demee di seetu Serigne Serigne Assane ak ñi fi teew ñëpp suñ maam Baye ñeeg mi nga xam ne maamu suñ Modou Fadiama xam ngeen ne ci ñett ñi njëkk a suñ tu ci la bokk Alaaji Jili Jaay mi maamam ñaari ñaari côté yëpp suñ Sultaan Jaw xam ngeen ko suñ Mat Jaw Paxa ñëpp xam nañ ni mu ci sëriñ bi ak ñi fi teew ñëpp jërut lim ndax loolu andiwu leen fi ak maam daam ñu ngi koy nuyu ñoom ñëpp waaye li am solo rek mooy. bu sa bu sa xol nekkee ci sëñ bi euh, daanaka doo tala sax euh, de wax li ñuy wax mu jaama ndax yëg-yëg laa ci am mayet ndax euh, liggéey bi moom waxtu woon ne damay bëgg ñu sellal ko sellal gi muy nekk pasteefu kese suñ Cheikh wax na ko léegi mais sëñ Tuubaa néewoon na li leen saxaaba yi raw yi mooy pas pas pas pas lu ñuy def fass ca lii itam kon man moo tax daanaka sëñ Fall mi soo wax naa ko ba tey nekk am na ci loolu bëgguma juru ko leeral ndax day yàq jëf mm-hmm. ndax buñ ne li fi def lépp dañ koy jëme Sëriñ Tuubaa loolu tuuti la mm-hmm. ndax du sant sëñ bi mm-hmm. ndax ndax loo fa defoon ba yéem ko ñaari fan ñett danga ko ci am kon joxewoo asakay asakay asakay asakay rek la nga am kon loolu moom lu ñu nawee di niw ci li ci des rek mooy sant bu baax a baax suñu Cheikh yi itam ñu ngi lay gërëm bu baax ci li nga jëf ndax xam ne Sëriñ Tuubaa rek tax nga jëf ko ndax sa posté fa sa dogu ndax euh, bu fekkoon son yoon wi wàcc am na kon ni ma la ko waxee léegi kon wàcc nga ndax liggéey nga Sëriñ Cheikh Mbacke ba mu gërëm la ba yeewi la waaye yemoo ca Sëriñ Mbacke ma dina gërëmaat la waaye doomi Sëriñ Tuubaa it Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadr Serigne Saliou Serigne Chouaïbou Cheikh Mamadou Mourtada ñooñu ñëpp nga laqaat seen gërëm. te lenn lenn ngërëm lu mu ci doon a doyoon na sëkk mm-hmm. kon bu fekkoon wàcc dana am ci biir yoon wi kon mën nga wàcc ndax sa dund gépp li ma la wax léegi loolu taw taw feex la jula samaam defal njabootu Sëriñ Tuubaa yi itam jëfandiku ci yow mm-hmm. ba moo mooy cër bi nga am kon nag dañ lay ñaanal suñ boom gën a dolli sa kattan dolli sa wér ndax da ngaa bokk ci ponk ponk yoon wi bokk nga ci ponk yoon ndax sa dara génn suñ bi sa sa sa dem dikk lépp gëndu Sëriñ Tuubaa sama digg yow itam ginnaaw loolu li nga am sama kilifa yëpp it Sëriñ Tuubaa boolewaat ñu boole ñu kóllëre boole ñu xarit boole ñu ak cofeel yàlla def na itam njabootu Cheikh bi li muy yaatu yaatu yaa ma ci njëkk a tuddee doom wala ko ko jox ma kon loolu loolu doy na sëkk ab cër doy na sama digg maa ngi ci sama daara jee ca yoon Darou Moussi te loolaa ci gën tuuti. jàpp geeg cofeel geeg lépp xam nañ ko te bu loolu lépp amutoon itam man na sama posture Sëriñ Tuubaa mooy képp ku ma gis ngay dox ngay dox ci yoon yi doxinu positif bu ma la gisu tam yaa may gën kenn te sa dara génn Sëriñ Tuubaa nagani daaw yaa ngoon ci liggéey Sëriñ Muusaa Ba fukki fan a juróom fi nga toll ci at boo yebaloon say doom mu dem mu doy waaye da ngay lax saay ndef ba liggéey bi jeex kon la Sëriñ Tuubaa waxoon Seex bi tam la koy netti léegi rek ba ba ba ko suñ vidéo wax ne ko nee ko na noppalu mm. ndax li ko dal lépp liggéeyal ma moo ko teg kon wàcc naa ko ci lépp mm. maam Cheikh bi ne ko nee ko du ma wàcc mukk ndax moo ma njëkk a xëy ci liggéey Rasulullah te wàcc guddi ma de kon li fi wàcc du ma kon Cheikh bi moom yéen taw feex ji ngeen am yen njabootam gi ci bëgg Sëñ ba mel ne tëyu leen ko day day ko faggoon moom moo leen faggoon ak bëgg Sëñ Tuubaa loolu moom du lu yomb amu leen sago ci waa kër Sëñ xool leen nu mel xool leen nu nit melut ki ngeen fekk muy jaamu yàlla ak ki ngeen fekk muy toog di waxtaan ki ngeen fekk mu ne ci yéen xamewu leen ko Sëñ Tuubaa ngeen xool te yàlla def ci yéen it lu ma yéem dama naan leen loolu sax seen maam ngeen ko doonee Cheikh bi rek ci dof waaye ko gis ni mu doxalee addunaam ñaan ku ko ëpp xel ne fi waaye waaye ñoom ñii itam seen dof gépp ci Sëñ Tuubaa la waaye leen lu doon boo ci jëmee ñoom xale ñoo xam ne ñoo la ëpp xel loolu Sëñ Tuubaa la ko defal. seen seen pàggu teefu maam am ci nag xam naa ne ba muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa fàggoon la leen ci yéen ndax àdduna li muy yaatu yaatu li muy jaxasoo jaxasoo ba ndëgg ni dama koy wax ku ci dugg ci seen biir kër yi gis yar bi gis tarbiyoo gis taalibe ba ci seen njabootu bopp yi ku seen mun leen xamee taalibe loolu loolu loolu loolu loolu rëy la dara dara lu yàq jamono dugg dugg leen loolu tawfeex loolu pàggu teef ndax kenn mënu ko defal saw ndax nit moom day xalaat rawat na fii àdduna tool lépp nekk benn benn dëkk ni ñu koy waxee xew fee xew fale waaye yéen xool leen dara lu may Sëriñ Tuubaa leen dara lu may Sëriñ Tuubaa leen bëgg amu leen bañ lu may Sëriñ Tuubaa loolu tawfeex la kon nag ñi ñaan bu baax tey rafet njort li nga xam yàlla dafay liggéey bi ñu xëy mu jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa ngeen njëkk fi kon gëm naa ne Sëriñ Tuubaa nangu ko te Cheikh Mouhamadou Mountakha itam euh, wax na keroog Sëriñ Moustahine ci fan yee weesu ne ko suñ jëf ji mu yore fekk daaw la moo njëkk wax ne ma nga li nga lii nga jëf de li li li tax mu rafetal ma jot dama la ko yéene ndax gis naa ne doxinu mag ñara dafa mel na ma ñu doon doxe daal bëggoo ko soppi daaw la woon mu yónnee fa daaw màggal Poroxaan gi suñ nee na ma suñ bi tey ay di ji ah fi ñëw bari na waaye addi neex na ndax positif bi waaw baren lam ci waxaat moo ëpp loolu ma yow de ni ma la gisee daa mel ne eh, sëñ Manoumbe may ñoom ngay roy ak si ay saa noonu la ma ko <laughs> boobu néew mu fa la ma ca waxaat fàggul ma ko ca <laughs> du waxi du waxi mbooloo waaye kon nag ñu ngi sant bu baax tey gën a dalum xel rek gën a dafa njort tey ñaan yéen itam jéego yi ngeen dox ba fi ñun mënaluñ leen dara daxuñ leen jaamu yàlla gënuñ leen jub gënuñ leen nekk ci lu baax. kon bu ngeen def nii du suñ jëm yi jëm suñ Tuubaa tax suñ Tuubaa ma leen tax jug nag moom dara umpiwu ci moom kon yàlla na ci yàlla na yàlla na seen defaru àddina ak alaaxe di seen fajug aajo defaru àddina ak alaaxe gi am na sax ndax suñu kilifa fa nañ leen ko waaye yàlla na seen fajug aajo li seen kanam وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبتي وكل يوم يافعا من نبتي وجعل